Euh, maître Abdoulaye Babou maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay. yow ngay avocat à la cour waaye itam di taalibe Serigne Touba Cheikhul mu mel ni réewum Sénégal fan yi coow li bëri na fa lool mbirum borom ñaari tur yi coow li bëri fii tey boo ñu doon waxal en tant que taalibe ban yëg-yëg nga njëkk a am ci li nga xam ne mooy coow li xew ci Sénégal jëm ci mbir moom. Euh, jërëjëf ci li ngeen fi jaar. Euh, ndegam sunu xalifa sëñ Muntaxa Mbàkke wax na ci mbir mi joxe na tam ay joxoñ kon nag taalibe bu nekk sas na la moom am na lu xew ci réew mi lu neexul yàlla neexul yonent bi li nga xam ni sëñ Tuubaa mi ñu yaakaar àddina ak àllaaxira sib na ko loolu moom su dee wax jooju jóg na ba pare sunu kilifa di sëñ Muntaxa soññu pour ñu am ci taxawaay bu rëy nee naa kon taalibe bu nekk waru garam la mu wax ci yàlla nag moo def ni man ci wàll woowu laay liggéey maanaam yoon am naa ci fanweeri at ak juróom-benn liy taxawal liy wéyal Sénégal yépp dañ koo tënk ci ay jukki yu baree baree bari moom la ñuy wax droit léegi nag ci jukki yooyu ñuy jëfandikoo bis bu nekk. da ci am bu ñu tuddee droit penal mbir moo ñaaw moomu ñuy wax ci mbiru borom ñaari tur yi normal na kon nguuru Sénégal am ci gis-gisam wax yi nag am na maanaa trop li tax mu am maanaa c'est que benn article benn sumb bu ñu tuddee article 319 di code pénal moo wax ci wàllu woowu mais wax ji sax mën naa wax ni euh, dañ koo junj rek dañ koo junj kese waxuñu ko àgguñu ci livre bii ma yore moom la ñu tuddee code pénal maanaam yépp ci ñuy àttee ak lu nit di mën a def yoon ni d'accordu ci lépp fii lañ ko tënk mooy loolu la ñuy wax code pénal code pénal nag moom li mu wax tuddul turu borom ñaari tur yi tudd ko benn yoon ci code pénal néewul nga baal ma tekki bi góor jigéen waxu ko de article 319 du code pénal lu muy wax daf ni nit koo xam ni dafay def outrage mooy coon tooñ walla di fowantu fowantu fowantu li tubaab di tuddee par un acte impudique ah, walla defante yoo xam ni daal moral dàq na ko. def loo xam lu ñàkk lu ña voilà lu ñàkk teggin. voilà au lieu bi. Hmm. wax ni ni mbirum góor jigéen déedéet waxu ko. tuddul baat bi loolu nag moo gën a jaaxal ku nekk lu tax lu ñaaw lu mel ni mbirum góor jigéen lii nga xam ni mooy code pénal dund ko tudd ko alors. léegi nag bi dara desul ba ñuy appliquer yi ci des naa ku def yenn yi ku ko xaw a nirool ak ah, loo xam ni euh, la nature nangu ko ah un an wala trois ans lañ lay condamné. mooy xam nga ni ku bëgg a wax góor jigéen mën ngaa bind góor jigéen ni homosexualité mais defu ko mais terewul da koy raay di jaar fii di jaar fii. loolu waree na déjà volonté ah ñi bind lii muy code pénal fu ñu jëm ah mais nag terewul ñun li ñu intéressé mooy ñun suñuy njiit nan lañ ko gisee li ci am solo mooy suñu président de la république ah di président Macky Sall jëkkoon na ci am position yu bari jëkkoon naa wax bu leen ko fàttaliku bi fi euh, Barack Obama ñëwee ni ko ñun li ñu bëgg mooy nga dëggal mbiru borom ñaari tur yi lu ma waxoon def ni duma ko def duma ko def tànk ma fiy nekk mais wax jooju bi mu waxoon ci Obama ñépp ñoo ko rafetlu ni li mu def bañ na ko mais nekkul benn wax am na yeneen déclaration yu ñu def yoo xam ni des fois mbir mi jiix yi jaaxa des fois même mbir mi leerul bi ci mujj mooy la indi coow lañ am na benn proposition de loi boo xam ni ay député ñoo ko dugal ni jëf ju ñaaw lu mel ni mbirum góor jigéen dañ ko war a criminalisé xam nga lu groupe waa Macky Sall wax ni nee na wax jooju dañ dul nangu sax assemblée nationale ñu wax ko fi dégg de daq dañ ni du nangu ñun sax ñu wax lu ci jëm loolu mooy lan doo ko wax loolu xanaa doy na waar duñ ci discuter ñu ko ah moo na soo xoolee tuuti ci ginnaaw est-ce que ñoom criminaliser wuñu viol viol ñaawteef bu mel noonu la ñu yóbbu ko crime tey ñu ñëw euh, waa kër président Macky ñu ni ñoom sax duñ ci wax maanaam may ñu kenn ñu wax ci seen xalaat mooy irrecevable ndax def nañ lu mel noonu ba pare du dëgg man maa koy wax nekk naa avocat fanweeri at ak juróom-benn nekk naa président commission des lois loolu bureau assemblée nationale wax teguñu ko fenn lu dul mu neex leen ndax ku leen joxoon article 319 bii wax lu méngoog ñoom kenn tudd ci homosexualité dañoo jëlaat yeneen jëf yu ñaawoo ay acte contre nature luy acte contre nature. Ah, lu ñàkk teggin rek déedéet commencé wu ñu loolu sax. Ah. acte impudique. impudique. pudeur mooy. loo xam ne voilà mu ni acte impudique mm-hmm. ah. Mm-hmm. noonu lay wax lu tax nga gis lii am na di fang. ñépp xam na ni su ma jaaree ci digg ba mbirum góor jigéen mi ngi fi yow nga ni du ma ko tudd. lu tax da ko war a mais nee naa la code pénal baa ngi nii. doo ko ci gis. nekku ci kon nag xam nga ñi ko ci dugalul te xam ne am na am na lu ñu naar code pénal baa ngi nii moom laay liggéeyee depuis fanweeri at kenn waxu ci affaire homosexualité ñii taxaw ñoom ñëw tey ni c'est irrecevable parce que kii nañ ko. kon boobu fu mu war fenn lu dul ci seen bakkan te rejet bi nag su amee loxo président Macky Sall génnu ci. mooy seen kilifa fu mu joxoñ ñu def ko su leen nee woon d'accord leen kii bi recevable mu ñëw ñu criminaliser ko ñoom dañuy daldi def ko. kon nag mbir maa baa ngi bëgg doy waar man xam naa ni muy doxe su doon yéene président Macky Sall kon def nañu nii alors affaire du góor jigéen dañ ko war a criminaliser mais jox naa leen léegi exemple bi ñu duggee affaire du viol defuñu ko voilà ana coow la coow la jeex na léegi xam nañu ko violé jigéen lii ngay def pourquoi bëgguñoo bind ni. ku def yu bon yu ñaaw yooyu di homosexualité nii lañ lay kii kon moo ko bëggul yoon may na président Macky Sall lu gën a gaaw projet de loi. moom mu defal ko directement. boppam une semaine su ko defee procédure d'urgence une semaine ñu voté ko lu tax defu kon bu neexoon président du jaar fenn moom mooy. du jaar fenn mooy jël initiative am mooy jël initiative am. mu yegg majorité am day daal di def conseil des ministres jël benn projet de loi su ko neexee sax ni ko projet de loi la boo xam ni dañ ko war a examiner ak urgence ñeenti fan ñu voté ni homosexualité criminalisé nañ ko wax ji daal di jeex mu bañ ni du changer article bi fi nekkoon article 319 bii waxul sax homosexualité tunul sax homosexualité lànk ni assemblée nationale du ma ko permettre mu ñëw sax ñu wax affaire u homosexualité waaw lii mooy lan moo ko tey man sama xarit la duma ma ko de yàgg nañu depuis assemblée bii d'accord mu ci bii d'accord mu ci dafa war a am lenn loo xam ni warul jóge ci euh, boppam benn sénégalais yi ñoo ko fal benn dafa war a def bëgg-bëgg sénégalais yi. mais homosexualité ku ci d'accord kenn plus de quatre-vingt-quinze pour cent ay jurit sëñ Muntaxa rappelé na ko te su waxee daraa tax mu wax représentant sëñ Touba su waxee romb na ñëpp ñëpp ci war a ñëw te su waxee du waxantu wax jot na loolu quatre-vingt-quinze pour cent des Sénégalais catholique yi lu ñu wax d'accorduñ ci pour nga ànd ak Sénégal yi topp seen bëgg-bëgg yow nga toog ni la ñi ma faloon démb faalewuma li ñuy wax damay wax li ma neex kon nag mel na ni loolu ko nit ñi doon wax ni léegi président Macky Sall mu dégg ndigalu tubaab yi ndax tubaab yi daga na leen góor jigéen daga la ñu jigéen ak jigéen di sëy lu nekk sax daga nañ ko ndegam léegi président Macky ñoo ñu la bëgg a topp seen bëgg-bëgg kon nag nekkalatuñu wax jàng yi mu naqari naqari loolu la man sama nit la duma ko weddi te yàgg na lii mu def man d'accorduma ci nii mu def man d'accorduma ci tey d'accorduma ci ëllëg li ñun Muntaxa wax dañ ko def nañ ko jooytu bu baax a baax ni neexul yàlla neexul yonent bi lu neexul sëñ Muntaxa neexul sëriñ Tuba neexul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxatum sunu borom bu ko ci kenn ànd ak moom moo ko tey te am na bunt mooy bunt bi ma ko jox suba na dem jëli projet de loi teg indi xelam xam ni sénégalais yi d'accorduñ ci sénégalais yi war koo gënal tubaab yi loolu daal mooy li jik président Macky Sall. ci wàllu yoon moom amul benn yoon bu ñu mën a jaar. mais nee naa la am na yoon. na bàyyi pro proposition de loi boobu teg fële. moom nee nga moom moo ko neex moo tax mu am. voilà askan wi nag ñoom amuñu beneen possibilité ci wàllu yoon. ak sa malheureusement. askan wi amu ko. askan wi amul benn possibilité. mais moom président Macky Sall jusqu'à présent man xalaat naa ni day dellu ginnaaw. indi projet bi mais munu koo niinal su ko bëggee niinal la mu koy coûter sax xamu ko. député bañ lii ban responsabilité lañ ci am. ak lu mu leen dara ba dara booro jeex yoon def ni député am na possibilité joxe opinion kenn mënu koo poursuivre ci opinion waaw kenn mënu ko poursuivre ci opinion kon nag député yi ci d'accord seen bëgg-bëgg la ñu wax ñi ci d'accordul tam ah, yoon may na leen ko mais man li ma seet mooy lan la Sénégalais yi bëgg je m'adresse au président Macky Sall moom lay waxal lan la Sénégalais yi bëgg kenn bëggul mbirum góor jigéen Sénégal am nga occasion lii la Sénégalais yi bëgg jaaral ci Sénégalais yi bëgg résister nag pression bu mu mënti am ndax ci làmmiñam la ko waxoon bu mu ko fàtte moo ni woon tànk ma fay nekk loolu du am fii ci dëkk bi léegi nag yoon dem na ba muy dox li mu waxoon ba ma jàmbaar la agsi nañu fii léegi ba mbir mi taxaw na nee na kët ni jonn li lay war a suri na teg projet de loi dindi ko fi parce que lii fi nekk ku ko wax ni ko réglé na problème bi da koy nax xam na ko sax ni yi aussi bu ñu nelaw ci loolu code pénal ngi tudd ñu ci sax mbiru homosexualité tudd sax defuñu ko te mi ngi fi lu fi nekk yoon mën na koo dindi lu baax yoon mën koo téye lu bon yoon mën koo génne Macky Sall am na pouvoir yëpp am na doole yëpp yàlla may na ko kartan bépp pour mu mën a jël projet de loi su ko deful aussi jël na une responsabilité historique parce que su dul moom keneen su dul moom su sénégalais bu yàlla fal ma desuloon man su ma yàlla faloon président de la république la may njëkk a def mooy génn fi euh, affaire euh, góor jigéen article 319 waaw le problème est très clair su ko defee déggal son su ko deful d'accordul ak son peuple Sénégal nag <laughs> mi ngi ci ay loxo de. loolu la. ñoo ko njett lobby yi ñoo ko njett lobby LGBT yi ah gouvernement yi ak yëpp ndax dégg naa benn interview boo xam ne mu ñoo ñooñu seen affaire dañuy seet ba amul seet lii la mu jàppoon mooy dëgg du sunu diine du sunu aada du sunu doxin li lay war lépp lu mu toogal biir Sénégal te deful lii ma la wax dese na ko lu rëy. li sëñ Mountakha wax. man kay mënu ma ci teg ba rek ubbil la buntu ñëpp li sëriñ Muntaxa wax te du waxantu te su waxee li koy xam waxloo sax doo xam ubbil na bunt yëpp parce que wax bi devoir la ko def néewul nit ñi da ngeen di kii devoir warugar la wax ni jurit bu nekk warugaram la mu jóg wax ndi mbiru ñaari góor jigéen yi nanguwuñu ko ci biir réew réewu Sénégal ba mu leer nañ ñëpp ñëpp ku deful nag yaa yëg ku ko weddi gis ko waaw. maa ngi sant Pape Saer kontaan ci wax ci lii ndax man ndigal laa ko def man ni ko sëñ Mountakha waxe ndigal laa def sama bopp ne war naa cee wax te yàlla dimbali am naa ci xam-xam. boo xam ni maa ngi koy liggéey depuis fanweeri at ak juróom-benn di nekk avocat. absolument ku ci bëgg a dox taxaw naa fuñ ma woo ne ma defal sax conférence d'accord naa pour nit ñi xamul ku ma woo ne ma defal conférence ci wàllu woowu dinaa gën a mën a toog gën a yàgg gë gë gën leen a jox ni euh, li sëñ bi wax ak. wone ni waruwaay bi ñu war a def ñun ñëpp pour yi eh, euh, yëfi góor jigéen Sénégal ku ci invité ak fu ñu ma invité muy sëriñ daara yeeg conférence ak yëpp pare naa takk sama bagage ñëw man maa la ko wax.